qui centre euh, bien nga xam qui hangar aéroport Léopold Sédar Senghor centre non hospitalier des patients de finac de di traiter traité traitements traitement bi maintenant nañ wax ni ci les résultats fi gis résultat Lolo, encouragement lañ ci jëlé di profiter di féliciter le ministre de la santé ak collaborateurs yi ak équipe médicale ñi xamné ame bi mbass bi amé ba légui ñu ngi taxaw diko ak engagement di tamit une force de défense et de sécurité ci collaboration avec le ministère de la santé Nous avons fait bi Touba eh, hôpital de campagne hôpital bi centre de santé de Darou Marnam am yenen site Thiès filles Dakar lolu woné na que armée mu ngi liggéey mu ngi liggéey ci front sanitaire non seulement day joxé li nga xamné moy site ay infrastructure en même temps ay médecins yu les ak personnel ministère de la santé pour que nous ñëpp ñu liggéey mëna di féliciter ñi nga xamné ne fi ndax dégg nañu benn témoignage cédé boobu dawna yaram ndax nénañu ñi fi nek ay médecins dévoués la ñu leen topato ba ñu de euh, fi niñ ko ah, man tamit. ma ngi leen di encourager ci turu président de la république Macky ñu gën a góorgóorlu ndax mbas mi mu ngi fi ba léegi te loolu war nañ ko wax relâchement bi baaxul suñ ko defee kay day gën a yokk ku ne war na ci dugal loxoom.